sensu référendum wante malheureusement li xew mooy président de la république tëju ci néegam waxtaanu la kenn defar projet am dugal ci loo xam ni firilu ko askan wi ba mu leer ci seen bopp dëxëñ ci loo xam ni suñuy diine suñuy aada suñuy valeur nanguwuñu ko te leeralu ko nit ñi ñëw ne nañu ko ko voteel ci benn weer sans waxtaan tas na Sénégal puisque moom dafa jàppe boppam au lieu mu nekk njiitu réew dafa jàppe boppam chef de clan maanaam APR ak ñi ànd ak moom li ma gën a ñaawlu mooy muy woo ay maire ci biir Sénégal di leen menacer di leen wax ne bu ngeen àndul ak man état bi dootul def ci seen dëkk dara wax na ko ay maire à Sokone wax na ko ay maire dans le département de Mbacké wax na ko à travers tout le même fii bi mu fi ñëwee cees dajale imam yi dajale chef de quartier yi ñu defee ni lu nekk lay wax mu leen di menacer mel ni li mu yore du alalu senegal mel ni ku àndul ak moom ci gis-gis wala nga ànd ak moom ci xalaat bokkatuloo ci Sénégal te moom dafa doon wax la patrie avant le partie léegi nag patrie bi la jël bëgg koo dugal ci parteem moom kese donc loolu lu ñaaw a ñaaw la ensuite violence bi ñu fiy def di kar nit ñi di yore ay jaas ci ku yore pouvoir nga xam ni yow yaa am responsabilité sàmm kaaraange nit ñi loolu lu ñaawa ñaaw la loolu daal la ñuy la waaw xam nga nit ñi dañoo jéppi njiitu réew mi c'est ça la vérité ba jàpp nañu ne mu woo ñu wuyu ko sax sib nañu seexlu nañu ko wuyu loolu moo am ñun li ñu leen di wax rek mooy que c'est vrai li mu def ñaaw na ñaawaay boo xam ni comportement bi mu am ñaaw na ñaawaay boo xam ni jar naa sib jar naa seexlu wante nag moomul Sénégal ñun ñoo moom Sénégal dañu war a jóg ñëw tranquillement wax ko ne ko li nga bëgg a def ànduñu ci tey ànduñu ci ëllëg voté non mais loolu nag kenn mënu koo defal kenn kenn ku nekk ci ñun yaa war a jóge sa kër ñëw ci sa bureau de vote sànni wane li la naqari puisque c'est vrai boo wëree Sénégal maa ngi koy def depuis ay weeri weeri weer maa ngi ci biir Sénégal dem naa Fuuta dem naa Bakel dem naa Kédougou dem naa Casamance dem naa Pikine dem naa Géejawaay fu nekk dem naa fa sentiment bi nga xam ni moo gën a siiw ci senegal mooy nit ñi dañoo jéppi njiitu réew ba seexlu nañoo wuyu woote mais nag ñu ngi leen di ñaan malgré loolu ñu def seen devoir citoyen ñëw voté wax ko déedéet comme dina xam ni nekk njiitu réew lu la neex def wala di diggéey bañ koo def bañ a sàmmoonte sa kàddu wi la ci Afrique te Sénégal mérité na leneen. merci.